mbokku internet Saint Louis TV dalee nag jàmm deuxième numéro parole aux éleveurs tey ñu am fils ñëw fii si Pikine Jaminaar fekk si champion bu mag champion bu dootul présenté si wàllum élevage rawatina si base cour bi tax ñëw fii seet si ko Abdou Fatah maa ngi lay champion bu na maa ngi lay fay. ñëw tey seet si la pour ñu waxtaanee élevage ma ni sama njëlbeen wax Abdou Fatah mooy ki nga xamante ni élevage kenn dootu ko présenté si li nga li mu def si jaloore ak fi nga fekk élevage ak fi nga yóbbu tey élevage ndar mais Fata pour ñu lay seetaan te xamuñu kan mooy Abdou Fata ñi nga xam dañuy dégg sa tur rek boo ñu doon présenté Abdou Fata mooy kan. salaamaaleykum mbokku Saint-Louis TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa di wax Abdou Fata de benn xale la bi nga xamante ni bi juddoo fii nii à Saint-Louis màggee à Saint-Louis waaw yàlla def aussi mu doon jàngalekat. am beneen métier boo xam ne mu ngi siy yëngu muy élevage waaw élevage nag nekk na li nga xamante ni mën naa ni dono la quoi te nee nan moom nit ki loo doonu day foor ndax dama juddu fekk sama papa di yar ay xar waaw sama yaay aussi di yar xar aussi nekkoon aussi si basse cour bi basse bi mu ngi si doon yar ay coquine muy yar kanaar daan na yar ginaar mën naa ni ginaar sax foofu laa ko doon aussi sama grand frère di yar pigeon di yar aussi ay lapin quoi man nag ma juddu topp seen tànk waaw bu ma xoolee depuis 1994 95 si la tàmbali élevage waaw ma doon yar ay ginaar euh, noir arco ay rod rouge ay grimacer ay euh, isa ba yegg si brahma loolu nag brahma bu mu ko commencé aussi wax dëgg yàlla lu ne am naa ko si quoi waaw ma toogoon benn instant aussi ma defoon stand by en 2017 ma ne woon non damay arrêté ginaar quoi boobu fekk maa ngi dugg si biir xar mais bu ma demee ba dugg benn kër éleveur ma gis fa ay ginaar xam nga rek loo xamante ni bëgg nga affaire bi laal ma quoi ma am lu ma sentir lu garaaw <laughs> waa si laa jëndoon ay cuuc ok ay cuuc laa jëndoon maa ngi jënd woon ñeenti cuuc cochin blanc à 150 mille mu nekkoon rumeur bu garaaw nag fii nii à Saint-Louis. waaw depuis boobu nag ba léegi maa ngi si ginaar yi ko macha allah donc Abdou Fatah ku la dégg ngay wax xam ne un passionné may wax ku bëgg élevage sama biir wax ma dem ba naan la kañ nga démarré élevage mais nga ni ma loo tontu la donc lu yàgg la ci yow mais aussi loo xam na te ñu ñëw fii seet si la buggoon nga defal ñu présentation sujet yi tey maanaam lan moo nekk ci kër gi Abdou Fatah lan ak lan ak lan lay yar. waaw Abdou Fatah mu ngi si ginaar yi. ginaar yi nag ñu ngi spécialisé wu si ñetti race mhm. mooy race euh, cochin mhm. euh, race brahma ak race orpington mais aussi mu ngi yëngu aussi si ay xar ay laadum quoi ay laadum waaw mais cochon ñaata ñaata ñaata variété cochon moo fi nekk wala benn cochon rek moo fi nekk non non maa ngi fi yor ay cochon blanc yor naa fi aussi cochon kayité yor naa fi aussi cochon argenté ah. waaw ñetti façon cochon yooyu noonu laay def orpington yi moom yenn genre orpington la. orpington aussi ñu def orpington argenté liséré noir quoi. argenté liséré noir. bu dee brahman moom ban genre brahman ngay def. brahman moom maa ngi def euh, brahman herminé. ngi def herminé. waaw mu mel ni Fata li ñu limal si ay bagages bari na. dégg naa nga ne ma cochin si cochin wax nga ma ñetti variété cochin yu bokkul nga wax ma orpington wax ma herminé mais fa Abdou Fata yow ganaar yi ngay def yëpp amul benn boo xam ne race locale la. yëpp ay ration yi importé te gis ni importation bi dafa cher si wàllum ganaar donc ñu am yaqin ni kon lii lu cher la tey jii boo doon xayma dama njëriñ la rek lii lépp ñaata la dikkee sa xaalis. waaw mën naa ni ginaar yi boo waxee bi prix bi sax ñenn ñoo xamante ni yaruñu ginaar yi nii duñ la gëm. Mm-hmm. waaw mais ginaar yi bu ma doon estimé ak lu mu ndaw ndaw. Mm-hmm. na nekk deux millions sept dama ni ak lu mu ndaw ndaw. waaw dina nekk deux millions sept cent mille. deux millions sept cent moom nga def si ganaar yi. moom laa def si ganaar yi. mais Abdou Fata deux cent mille si ganaar sa waa kër yëg nañ waaw sama waa kër au début comprendre lu woon. Mhm. mais dañu dem ba avec le temps comme mujj nu comprendre ndax lu mu la wax sànq rek ñoom si élevage la ñuy yëngu. dëgg la ndax moment bi ma tool ni samay rakk sax ñu ngi yëngu si élevage. macha ñom bu ñëwé aussi ñu gis caisse yi di dem caisse yi di ñëw gis xaaliss bi nga xamante ni yaa ngi koy dugal ak xaaliss bo xamante ni yaa ngi koy génnee daan comprendre ni ginaar yi cher na. ok mais léegi waaw li nga wax nga ne xaaliss dugg xaalis génn mu cher trop weesu 1 million weesu 2 millions mais Abdou Fatah loolu yëpp si xaaliss si ganar ay walu ay dunq man de ganaar ma foogoon soqi saaf rek la mais kon ganar toll na fofu mais Abdou Fatah loolu noonu maanaam passion moo tax nga koy def. wala business la lan la 2 millions 700 si ganaar passion la wala business la. waaw man dama naan passion la mais day ànd ak business ndax toujours samay wax sax dama naan passion plus. ndax du ma jël valeur bu 2 millions 700 mille. Mhm. lu mu ndaw ndaw 2 millions 700 mille di ko def si ginaar yi nga xamante ne pour seetaan la xëy na business bi aussi da si bokk ndax ginaar goo xam ne bu la nenalee nen bi doo ko jaay. Mhm. cuuj bi lu mu ndaw ndaw am na yoo xamante ni benn cuuj benn fan yaa ngi koy jaayee 17 500. benn cuuj 17500 man mom lay jaayee si yenn ginaar yenn variété variété macha allah macha allah kon mbokku internet Saint Louis TV yéen ak ñoo ko gisandoo tey mbégte leen am fekk si champion bu mag Abdou Fatah ñu dégg muy wax ñu xam ne ku bëgg li muy def la un passionné la mais aussi ku xam li def la ndax si biir wax yaa dégg mu naan passion la mais business la wax na dëgg ndax ma am yaakaar ni ni du jël yenn somme yi di ko dugal si loo xamante ne xëy pour toog di xool kese mais Abdou Fatah da nga lim nga ni brahman ni herminé mais ñi nga xamante ni xamuñu différence su brahman ak herminé sama genre yi am damay dégg brahman dégg herminé mais est-ce que brahman mooy herminé wala bokkul dafa am brahman à part am herminé à part. waaw benn race la mais herminé dafa nekk si biir race su brahman mais dafa nekk jinaar gi nga xamante ne xam a ñun sénégalais yi dañu bëgg la couleur noir et blanc. Mhm. waaw tey si tey ku mel na sax sama faaleen bi. Mhm. moom boo ko xoolee toujours solinam. noir et blanc lay doon ko bëgg quoi ñun Sénégalais est-ce que est-ce mais léegi euh, maanaam Herminé moo toog aussi si benn waxtaan dégg benn champion Modou Fall mu ne ma Bramane kenn du ko baal défaut da ngay dëggal loolu. waaw dama koy dëggal. lu tax loolu. ndax euh, Herminé dafa nekk euh, avant tout dafa nekk Brahma. Mhm. te Brahma dafa am ay am. léegi bu ñu ñëwee si ay critères u Brahma boo ñëwee boo tàmbalee si bopp bi day am benn bopp boo xam ne warul rëy day ndaw. te aussi crête bi day nekk crête trois traits yi nga xamante ni crête bi lu mu gën a ndaw ndaw maanaam standard bi quoi Brahma standard crête bi lu mu gën a ndaw ndaw moom moo gën. crête mooy maanaam. crête mooy luy tegu li nii si kaw. mooy jubbu jubbu bi genre jubbu bi. Ah. ñetti lay ñetti lay doon mais lu mu ndaw ndaw mooy mooy te moo mooy gën quoi lu mu ndaw ndaw aussi boo ñëwee si Brahma euh, dënn bi dafay large dënn dafay nekk loo xamante ni dafa large boo ñëwee si tànk yi tànk yi day mel na lu ñu solal kawas quoi maanaam day am karaw mais day mel na lu ñu solal karaw ba pare brama aussi kenn gi warul jóg si kaw a kaw aussi warul gudd ba mu warul gàtt aussi ba mu ëpp dafay yem brama léegi nag bu ñu ñëwee si brama ba pare ñu ñëw si couleur bi herminé mhm. couleur herminé lu ñuul luy nekk li si doq bi waaw nii nii moom lañ naan kamaay si tubaab quoi loolu noonu dafay ñuul mais dafa am fu muy yem

lu tax ñaan brahman duñ ko éliminer du mes duñ ko bal yeen défaut yi ndax ay critère nga génnee mais ci biir lool aussi comme brahman mo mel non mais kon cochon mom nu wara mel ñom ñaan ñeneen wala yamunu éliminer ak cochon yamunu non éliminer cochon yamunu lu seen différence waaw cochon boko xolé ma tambalé ci bop bi comme fële rek mom mhm. dafa am keret simple manam ben trait kessé mom lay am aussi bop bi moy gëna reuy rëy bop brahman cochon dafa nek ginar gi nga xamanteni ginar bu reuy la manam dafa reuy ba pare dafa rond daa la dafa rond si biir rond bi aussi cochin dafa am caaya comme sànq nee naa brahma. Euh, day sol kawas day sol kawas. cochin nag caaya lay am. Ah, kon ganaar day sol ganaar gi sol caaya ganaar gi sol kawas. très bien ok. te boo xoolee mën naa gën a sore sax. Mhm. Euh, boo xoolee cochin. Mhm. Euh, moom moo liggéey brahma. cochin moo liggéey brahma. ndax boo xoolee brahma ñu ngi ko liggéeyee si cochin ak combattant de Malais. dëgg la ñoom ñaar lañ ko liggéeyee moo tax boo xoolee comme caaya bee ne si mën naa ne daka si compal ab as tuuti rek jox ko. macha allah macha allah macha allah kon mu mel ni Fata yow li ngay wax loo xam la loo maîtriser la mais si biir loolu cochon yi dama dégg sànq nga limal ma. cochon argenté. Mhm. ni ma cochon ni ma ni ma cochon kayité. ni ma cochon blanc. ñu bëgg waxtaan si mais lu ma bëggoon waxtaan Fata mooy cochin argenté ngay kii nga njëkk dugal ndar. mais aussi su ma bañee jum sax ngay nga bokk si ñett wala ñeent ñi xam ne ñoo ko am Sénégal mais lu waral cochin argenté rare naqari am lu mu ci mën wax. waaw cochin argenté boo xoolee lu tax mu rare benn nit moo ko fi yoroon di ko produire benn nit Sénégal lu muy rëy yëpp kenn kese moo fi yoroon cochin argenté di ko produire te kooku noonu dafa am ñenn ñu mu ko doon jox man mii di wax yow joxuma ko woon mais dox na ba ñëw si man. ndax aussi dama am benn association ASBAC damay benn association ASBAC da nekk ay jeunes yoo xam ne ñu ngi Saint-Louis. Mhm. léegi ñu toog en réunion ma ne leen ku gis cochin argenté na ma ko wax. comme foofu éleveur pigeon yi ñëpp doole man ak sama gars yi ñun waa ginaar mën ne leen ku si gis cochin argenté ak lu mu mënti jar naa ko jënd. lu si loolu nag. Mhm. si la ma yàlla boole nit ki nga xamante ni am na ko yéene ma ko te c'est la première fois ma koy am nag. deuxième fois may am coussin argenté ndax yorona bi mal ju yu bëri bëgg ko après ma génnee mal bi waaw ma ci wat ñu joxaat ma couple te yoy yëpp benn nit moma koy moma koy jox manam mën nga yor xaalis aussi mhm. xam xaalis mën nga koy yor nga ni damay jënd bagage mhm. mais tay bo yoré xaalis xamo bagage mhm. wala bo yoré xaalis amo relation ak nit ñi du la jox bagage man nak kuma kuma ko jox ki kooku non tay si tay luma bëgg ci élevage buma nek ay wo mu ay wo macha allah macha allah macha motor mana? nga peta, rek moo tax maanaam mais léegi euh, fata ma xaw argenté muy wax lu lunyak lu ñetti nit am sénégal Gabuk bëgg suñu am bukan ka ndar ma waxoon ko léegi mais argenté lu muy jar argenté de wax dëgg yàlla lu mu néew a néew a mhm. si ganar, lu mu néew a Kupul couple nag laa wax yor naa benn mâle trois mais couple bi lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw quatre cent mille laa ko génn Cochin Argenté. macha allah man daal war naa dugg si ganaar <laughs> mais Fada Cochin Kayte ma dégg ñu bëri naan ma dafa naqari produir dafa gaaw daanu Cochin Kayte dégg naa sax nit naan na dana teel a ganaar deux ans produire loolu mën na nekk. mën na nekk. lu waral loolu. waaw coussin kayit yi dafa nekk ginaar gi nga xamante ni moom it comme lu mu rawee coussin argenté bëriwul ndax euh, boo xoolee moom it ñetti cent moo am Sénégal ñetti cent. ñetti cent mooy ñett cent maanaam ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dugal coussin kayité ñoom ñoo produire te ko jox nit ñi. Ah. tey booy jënd coussin kayité élevage tool na foo xamante ni dañ naan la ban sang nga yor. comme ñu naan la laadum sang am na ganaar sang. comme ñu naan la laadum ci galactique la waa wala kii all black la wala kii golden la waaw wala kii bul tudd la ah noonu noonu la amee si ginaar yi ñetti sang yooyu noonu mhm. mooy sang binet sang Malick Saltigué ak sang wu Modou Fante ñett ñooñu léegi nag euh, boo xoolee problème bu gën a fés mooy consanguinité mhm. moom moo si gën a fés ndax ginaar yoo xamante ne dañuy bokk ndey ak baay xam nga ñu ñëw tëbante seen biir yaa ngi dégg jur bu ñu juree la prépare doom yi dañuy am ay défaut waaw wala duñu gudd fan quoi noonu la fa demee am na aussi beneen am na aussi beneen mbir bu nekk si biir ndax cochin kayite mooy ginaar gi nga xamante ni moo gën a difficile si ginaar yi man moom laay wax ndax tey si tey ginaar boo xamante ni yow bu la nenalee benn nen mën na toog un mois deux mois doo gisaan nen wala saison bi lu muy lu muy kooku moom en général coussin la quoi. coussin mhm. bëriwul lu muy produire. mais surtout nag euh, qualité. surtout qualité surtout qualité waaw. waaw waaw mais Fata am na deuxième euh, point. Mhm. mën naa ñëw si environnement bi. xam ñun tey nu ñuy yare mhm. tey si tey kaaf goo xamante ni kaaf gu ndaw la. nga ñëw yëkkati fi trio ginaar def ko si sànni fa kopp non mais ginaar le normal espace bu yaatu la war a nga ko war a yare te si biir espace bi dafa war a dafa war a am suuf. ndax suuf dafa am importance ci ginaar ndax am na ay ferñeent yoo nga xamante ni ñoo ngi si suuf ginaar gi da koy soxla comme exemple cookie mhm. ginaar gi da koy soxla mhm. am na ay euh, comme sax sax dafa am njëriñ si si si élevage volaille ñoom dañ ko bëgg yooyu ginaar da koy soxla am aussi beneen problème boo xamante ni moom mooy problème de santé man damay dama gëm ni ginaar ba mu nekkee nen si nga kay doore topoto ba bu muy nek lu mak dégg nga lu wax. dégg na dégg na la dégg na la yow rek lay déglu ginar gi bu mu nekké nen. waaw si nga kay commencé di toppatoo ba ginar gi di mak. néma nokoy noo koy toppatoowee. dé moo tax mu jaxal ma mo tax mu jaxal ma ndax nuy wé nen. très bien nen da ngay dugal couveuse sa couveuse ngay yor nga dugal si nen. Mhm. nen ba toj nga am yeneen nen yu ngay dugalaat. Mhm. bala ngay dugalaat nen nen la nga wara jël. Virinet def ma publicité ah. Mhm. Virinet ngay jël def pompe nga pompe couveuse bi nga dugal nen nen bi bu demee ba toj premier jour am na noo ko loo ko war a jox ba ba muy màgg waate maa ngi jox conseil éleveurs yi aussi. Mhm. Euh, traitement bi nekkul traitement chair poulet de chair. ndax mhm. poulet de chair deux mois lay am nga abaat. ndax euh, poule dormant yi ñoom ak euh, pondeuse ñoom ñoo bokk benn traitement boo xamante ne moom nga leen traité ba âge. datil quoi. ok d'accord d'accord donc tay Abdou Fatah su ma bu baax a baax problème bi ñun éleveurs yi ñu am pour produire cochin moy consanguinité bi moy environnement bi. mais mooy aussi topato bi. parce que dégg naa nga ni dafa bëri consanguinité. dina nga ni aussi environnement def sujet ak aussi topato bi mais ma bële maa ngi si cochin yi mais damay dem ci cochin blanc ma force ma force yooyu béy ñu ni ma fata day jaay rek. mais fata am na loo xamante ni mënoo muusa waane ba mu jaay la ko mooy dafa am benn famille boo xamante ni du génn mukk si si kaaf loolu dëgg la fata mais yow avant tout yow sa waay nga <laughs> ma <laughs> mais da ngay waaw famille boobu noonu mooy madame ñaa moom kenn ko jaay non je l'aime loolu am dëgg la si nit waaw mais man famille boobu noonu moom laa tuddee sama soxna bi ma bëgg madame ñaa moom laa ko tuddee famille boobu noonu maa ngi moom dana am histoire personnel. yow ginaar gi da ngeen am histoire. man ak gi dana nu si histoire bi. waaw ginaar gi dama leen jëndoon sànq maa ngi wax naan cuuj yu ma jëndoon ni cent cinquante mille. Mhm. ma jënd cuuj yi di jaay di jaay di jaay ba mu des paire bu mu desee per benn champion ñëw fii nii sama kër bëggoon. benn maal ma forcé ko quoi ni nga jëlal couple bi. Mhm. jëlal couple jëlal mu ne ma non non maal bi laa bëgg maal bi laa bëgg comme ni nga ko waxee rek Abdou Fatah moom day kafe day jaay. Mhm. ma jaay ko maal bi desee femelle bi ma toog ak bi Euh, yalla ji def ma am benn jeune mâle jeune mâle toog di xaar pour mu mat ak femelle bi. Mhm. jeune mâle boobu mat jeune mâle bi Fata woon comme kee madame ñaa la tudd kii Fata la jeune mâle bi nekk fi di produire di produire ma am si nag lu ne mën naa ni ginaar yu bëre ak mbir yu bëre ñoom ñoo ko fi indi ma jeune mâle bi daanu may wër jeune mâle di waraat di waraat di war ba am beneen jeune mâle jeune mâle bi aussi nekk ak moom ba jeune mâle bi daanu léegi nag bu mu daanoo. gars yi ñëw ñu bëri ñëw nañ di proposé naan femelle bi moom laa bëgg femelle nangam sangam mën leen femelle bii de. Hmm. bu ngeen déggee ni Abdou Fatah génnee na ko kaaf gi. Ah. ça veut dire que ni na élevage. <laughs> est-ce que macha allah macha kon mel ni Fatah ak femelle boobu noonu histoire bu yàgg la. kon maa ngi soo comprendre nag. Hmm. lu tax nga di loolu doo ko génnee. kon est-ce que mën naa ni yow femelle boobu mooy sa cumukaayu kaaf. waaw mën naa ni. ben instant damay nangu. Ah, ah, cumbukaay ah ma cumbukaay xam nga xam nga nun lu ñuy waxee kuyu gétt day am. Mm, dëgg la mais femelle bi moom mooy ndeyu ah, gi ndey gi. allah allah fi di produire. amiin amiin lu nga bëgg jaay. dinaa yow da ngay jaay rek dinaa yow yow ni ah ah dama dégg Fata ñu day jaay rek. comment damay def ah jaay rek. Hmm? mais heure bu ma jaayee yaara ji def na dafa am loo xamante ne moom laay cheikh si heure bu ma jaayee kaaf gi nii daa fi gis li bu bu ko jaayee ba pare daa gis li nga xamante ni moo gën fuuf lu ma jaayaan bu ne ma wax la leen hmm? sama gaay yu may àndal ñu dañ ma bëgg nag hmm. ndeysaan <laughs> dama daan jaay ba nuy jooy deen kay waaye loo xamante <laughs> jooy xatit naan ngi lii du génn damay toog sa xool di ko yërëm di ko yërëm quoi mais après nag dafa comprendre après dañ tok ma mom mu commencé di gis dem nak ba comprendre ma motax tax ñu toll nii bu nekk damay jaay damay jaay li ni du si tek ba dafa naan ma jaay ok comme aussi bala may jaay la mhm. fekk courtiana li nga xamanteni bu ñewé ñom dañuy signé ci lay soga di jaay ok comme suma comprendre fata du jaay pour le plaisir du jaay aussi pour l'argent mais day jaay pour perfectionner day jaay pour indi lu gëna a baax li fi nekkon ok ok ok ok d'accord na mais fata ma dégg sa biir wax nga ni da ngeen créé ASBAC ASBAC boobu naa si ñëw muy association saint pour la basse cour nga ne ñiy def ganaar def dafa tuub ba wëral la fu am agent argentin ñu wax la ka nga indi ko te bi nga amee dugal ko léegi fata ganaar yooyu ngay jël di ko si biir dëkk bi da am doole wala da am xaalis wala da am réseau ba loo bëgg day dugg si nu mu demee noonu fata lu mu bëgg rek day day ñëw ndar. mën naa ni am naa réseau. doole moom yàlla kese moo ko yor mhm. mais yàlla ji def na euh, xëy na mën naa ne daf may jàppale lépp loo xamante ni summ naa ko lépp loo xam ni bëgg naa ko mu ngi ma koy may mais affaire yi réseau la mën naa ne man nu muy jafe yenn gars yi man duma ko jafe xaalis la nag mhm. ndax cachet argentine ku ko bëgg dugal foog nga génnee xaalis bu weex tal tax ginaar la boo xamante ni de un dafa ñu mhm. ko fi am bëriwul macha allah ñu ko fi am léegi nag euh, comme nu la ko waxee sax mën naa tudd waa ji mën naa tudd. Mhm. champion Aline Traoré la ñu naan ko Ridwan. macha allah moom Abdou Fata bu bëggee même bu jaayul dafa naan ñaata nga am. wala yeewu suba ni ma tegal naa la si oto aw ma xaalis jëlal sama yoon nekk si heure boo amee fay. ah macha allah kon champion Ridwan moom yàlla na fi yàgg lool lool lool te wér te yàlla ko yokk. Abdou Fata. ma dégg ñu ni yéen ndar da ngeen créé benn association tuddee ko ASBAC mooy association saint pour la barcour pour la basse cour mooy association bi dajale éleveurs yi nekk ndar yëpp di def volaille te pour la première fois mu am loolu mu ci mën wax si ASBAC te ma forcé woowu béy ñoom ñu ngi waajal foire xam naa ko daa ma si may daa may nag Saint-Louis Saint-Louis TV ñu am exclusivité wu foire bi loolu mën wax si ASBAC waaw ASBAC dañ nekk ay jeunes éleveurs. Mhm. yi nga xamante ni ñu ngi yëngu si wàllu basse cour. Euh, xam nga saint bu ñu daan tudd élevage à chaque fois. Mhm. si Sénégal Saint-Louis da siy bokk. dëgg la ndax bo démé ci walu xar. Mhm. chaque année ñun ñoo daan daan. Mhm. chaque année nga ñëw ci walu ginaar ay champion yu mag ñom ñoo fi nekkoon mais nak bo xolé liguey bi dafa tasoon quoi ku nekk jaar sa côté. léegi nag ñun ñu nekk ay jeunes ñu tok ñu waxtaan ñun suñu biir dem séti mag ñi mag ñi aussi dooleel ñu ñu séti élève bép éleveur nak bu nga xamanteni ni mu ngi fii nii à Saint-Louis seeti nan la. pour nga ñeu rejoindre ASBAC. wa tay bo xolé en ce moment là mën naa ni bépp éleveur bu ñuy tudd si Ndar. Mhm. boo ko xoolee mu ngi bir ASBAC. machallah machallah mais tay ku bëgg bok bokk nu muy def. ku bëgg euh, bok ASBAC c'est simple. Mhm. man yàlla ji def na may trésorier bi. Mhm. adjoint quoi. mais ku bëgg bok ASBAC da ngay adhéré 5000 francs mais est-ce que am ngeen récépissé ASBAC am na kayit. waaw fii ñu toll ni nak lépp mën na alhamdulilah. metti woon na mais jéem nañ fexe ba kayit yëpp am nañ ah. fi ñu toll nii moom mën naa ni association bu régulier quoi régulière ok ba wax bi non bi wax ah i foire boobu noonu ah. foire wax ah i du ma wax ah mais kon baax na yàlla jam. Fata la ma si relation ak yéen éleveurs yi nekk Ndar ak yi nekk Sénégal dinaa nga wax léegi Ridwaan ma koy ñaanal yàlla moom mu yokk lu mu ba yëg ko ñaan mu bëgg élevage dafa ko élevage aussi partage la waaw extérieur aussi ay relation yu extraordinaire laay wax moom laa fa ndax boo xoolee suba rek ci dimanche bi am na benn euh, ay éleveurs yu mag yoo xamante ne ñu ngi Dakar dañ fas yéene jógee Dakar ñëw rendre visite waa Saint-Louis mhm. te sama kër la ñuy dal loolu ma wax Fata yow la ñuy seet si bu ñu la ñëwee ba si yow nga wan ñu yeneen éleveurs yu nekk yi à Saint-Louis macha allah macha allah donc mel ni équipe technique ñu ngi may def ay signes di may wax ni presque émission bi jeex na donc Fata sama dernière question mooy par exemple sànq dama dégg ci biir wax nga ni ay temps da nga def élevage dëmb dëgg ba découragé dugg ci waat tey jii nii ban conseil ngay jox jeunes yi bëgg def élevage ba ñoom ñu bañ a ba jàpp fi jàpp ba agsi fi nga agsi tey. waaw conseil bu may jox jeunes yi mooy élevage égal patience balaa dara. boo amul patience moom. Mhm. sa waay mënoo aussi mbir boo siy dugg da nga xam. Mhm. bépp mbir bo xamni même bu dul élevage bo siy dugg nang kay xam élevage race bo xamanteni fas ko ko def mhm. demal nga geussul race bi mhm. ba nga xam ko wala nga xol ay champion net bi aussi mu ngi si nga jàng ko ba mokal nga ko sooga di si dugg mhm. benen point bi aussi mom moy partage partage nit ki mom bo dul partager do am dara ndax boo joxul éleveur yi éleveur yi ñoomi dañuy tok seen rox ni dul la jox macha allah motax lu mu leen di diggal ñetti comme nu koy waxe ñetti yoyu non euh patience pertinence eh, ak partage partage allah allah mu mel ni ak suñu jeexantal émission Fata Wow, waaw di sante wa Saint-Louis TV di sante sama mbokk éleveurs yi tok di sante samay parents sama famille di len sante ñom ñep di len wax ni vraiment content content na lool lool sax si ñom machallah allah allah Abdou Fata ñi ngi lay jëm sante di la gërëm momi muy ku ñak ñaan ndax biñ ko waxé wa Saint-Louis TV dañ bëgg ñu def ci émission. yàlla xam ne ni amul jot mi ngi koy wax léegi dafa am ay mbokk éleveur yu woon ñëw seet si ka suba war def délégation jóge ay dëkk ñëw te jii nii mu nekkoon si préparation yi mais dafa bàyyi lépp ni ma ni ma TV bu ñu soxlaa wala wax si élevage dama bàyyi lépp comme fara ñu lay sant di gërëm di la ñaanal yàlla nga yokk ba yokku di la ñaanal yàlla bu fi ñëwee déwén bu def émission fi Fes de l'équipe production ba yeen sujet dugg si waat ndax xam naa ne ku baax nga te méyte nga lool di di gërëm équipe bu Sen sant Mandiaye di sant aussi Cheikh di wax mention spéciale Ismaïla Kara moom mi nga xam ne dafa ñëw jàpp si liggéey bi bàyyi léppam di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ñaari ay bis seen beneen numéro parole aux éleveurs ñu seeti beneen champion jox ko micro bi jërë ngeen jëf